فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه mbokk yi ñuy seetaan suñu TV am di jàmb yi ñu ngi leen di nuyu di leen di ndokkeel am gan gi nga xamante ni ci si suñu émission faj aada ak cosaan gan gi mu ngi tudd Cheikh Youssoufa Ndiaye Cheikh Youssoufa Ndiaye duñ def lenn lu bàyyi leen nga nuyoo ak askan wi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ñuy euh, déglu jamono ji euh, dala ko ci góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di jiital nuyoo bi ci ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi si kàttan suñu borom imaam yi bàyyiwuñu kenn. ak autorité yi ñu ngi nuyu ñëpp si kàttan suñu borom euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi nga nuyoo Youssoufa Ndiaye ñu ngi lay ziar lu bëree bëri di la wax ne dalal jàmm fii si suñu émission faj aada ak cosaan tey ñun mënoon nañoo xam kan moo Youssoufa Ndiaye fan la jàngee ak fan la dëkk. waaw euh, laaj boobu de ba ma ko laajee dama ciy kontaan si kàttan suñu borom ndax euh, Youssoufa Ndiaye moom sénégalais la. si kattan suñu borom di mbokkum taalibe euh, ci réew mi laa jànge ci euh, ju maa ngi juddoo Pout si kattan borom fa laa jànge euh, fa laa am loo xamante ne moom laa topp ci xam-xam si kattan borom ba yàlla dogalee ma wàcc alquran topp xam jàng yeneen fànn yi si kattan borom bu dee fànn wii may yëngu nag di wàllu faj bëri na ay gëstu yoo xamante ni def naa ko jaar ci ñu bari ak it loo xam ni sunu borom moo ma ko may muy ak xereñte goo xam ni ci moom la jóge si kàttan sunu borom. jërëjëf euh, ba tey tamit dañuy ñëwaat di commencer suñuy laaj Youssoupha Ndiaye ci ban anam lay fajee. waaw maanaam euh, Cheikh Abdallah waaw si kàttan sunu borom euh, maanaam faj moom boo seetee yaatu na trop waaye ñun yàlla. Euh, mu ngi ñu féetale ci li nga xamante ni mooy wàllu seytaane maanaam feebar yi nga xamante ni dafay jóge doon ay loraange jóge ci euh, maanaam seytaane maanaam di dal doomu aadama bi moo xam ci biir yaramam la wala mu doon ci ak dundam doon loo xamante ni da koy sonal te amu ci pexe feebar yooyu lañu yàlla gën a maanaam ci laa gën a spécialisé wu su dee jàngoor yi nga xam ne itam yu ordinaire la nga xam ne hôpital la koy faj am na ci ay quelque yoo xam ni Euh, dañ koy faj si kattan suñu borom euh, mën naa ni daal si suñu limee euh, yàlla xamal nañu ay xeeti garab ndax man ci gàncax laay faj ci xobu garab ak fleur ak yoo xamante ne dama koy ñaan sama digganteeg sama borom mën naa ni daan ñaar fukki jàngoro ak ñaar yoo xam ne suñu borom may na ma ci man koo faj ba mu wér peng ba borom dootu ko jàmbat yeneen yi ci des nag faj dafa yaatu si kàttan suñu borom. waaw donc dama dégg sa biir wax nga ne. am na yenn jàngoro yoo xamante ni bu dee doomu aadama bi daal na ko bu dee day dem ci hôpital yow mën nga ko faj comme yan. waaw euh, yooyu de mën nañ cee lim euh, xeet yi lu mel ni euh, maanaam crise épilepsie crise la boo xam ni ñu bari dañ koy jaawale ak seytaane maanaam dañ koy dañ koy nit ki day daanu noonu commencé di gémmiñ gi di fuur muy caddi caddi boo sàgganul sax mu matt làmmañ wi jaxasoo completement te boo seetee daanu bi du yàgg ay cinq minutes dix minutes mu bàyyi loolu ñu bari ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wër di ko faj yaakaar ni aw rab la wala seetaane wala dugg fekk du seetaane problème boola boo xam ne dafa nekk ci bopp bi gaaka sax ñu ko am ñu bari day làq day làmboog seetaane waaye duñu ko mën a tàqale ci ñu bari kooku yàlla may nañu ko si kàttan suñu borom am na xeeti gàncax ak xeeti yoo xam ne dañ ko ciy faj ba nit ki si kàttan suñu borom daanu boobu day daal di dañ si kàttan suñu borom euh, boobu benn xeet la ci xeetu maladie ordinaire yi ñaareel ba muy frigidité xam nga frigidité de moom dafa doon loo xam ni euh, bon mooy euh, ki nga xam ni day sëy te du jot boppam xam nga am na ñoo xamante ne impuissance la ñu am maanaam dañuy jot seen bopp ci lu gaaw kii nag feebar bi mu yor maanaam lu mu sëy sëy maanaam du jot boppam mën naa yàgg si ak soxna waaye du jot boppam kooku xeetu jàngoro la moom lañ naan frigidité kooku it dañ koy faj ci xeetu gàncax yi ba suñu borom dogal loola wér euh, maanaam am na am na tamit euh, bu dee ci jigéen ñi koo xam ni suy sëy maanaam ak borom këram euh, maanaam du yëg bànneex moom day daal di day metti ci moom aw mettit lay yëg si kàttan suñu borom dafa doon loo xamante ne feebar la da ngay gis sax day bëgg borom këram bàyyi ko ndax mettit bi muy yëg day tar loolu mooy feebar feebar la boo xamante ni jàngoro yi sëy la kookit dañ koy faj ci wàllu euh, maanaam euh, feebar ordinaire yi ba tey mën naa cee lim beneen muy euh, wàllu sinusite nga xam ni feebaru bakkan la maanaam yoon yi ngay noyee ñooy ñooy am jafe-jafe ba nga xam ni lu la xeeñ saxaar poussière wala lu la romb rek ci yenn xeetu xeet yi yow sa bopp da ngay am jafe-jafe commencé nag di ñandu ak di tifli foo toll day ñëw rek day mel ni robinet day day day day day ñëw rek loolu euh, bu demee ba yàgg ci nit ki nag dafay da jural benn jafe-jafe ci biir bopp bi ba nga xam ni ku la jege rek daf lay daal di seexlu ndax day mujj am xet waaw muy tiflit yooyu nga xam ne day ne ci biir ak ñandaxit yooyu nga xam ni yoon yi ngay noyyee ak yoon yooyu muy jaar mooy am jafe-jafe ji ba nga xam ni foofu day xeeñ di xeelli yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ni dañ ko fiy traité dañ koy faj ba mu set ba mu ba mu dañ ci nit ki si kattan suñu borom macha allah li nga fi wax leer na waaye li ma bëggoon nga gën a leera mooy sa biir wax dama dégg nga ne da ngay faj euh, lan moo la sa faj lépp lépp lépp mooy lan li ngay gën di faj ëpp doole gi mooy ñi nga xamante ni jàngoro seytaane da leen a dugg mm-hmm. yow yooyu noonu mm-hmm. ak yan ak yan yan yooyu noonu nan nan nga leen di fajee ak et puis tamit mm-hmm. ñaata nit nga ci fajagum ay résultat laa bëgg tey waa dëgg la laaj laaj boobu nga ma laaj eh, dinaa ci kontaan trop eh, Abdallah ndax yaakaar naa sunu liggéey bi dafa yàqu ndax li ci dugg te bokk ci moo yàq liggéey bi jamono bi daanaka sama waaj yi may nekkal danaan ma njaay ma ne ko ah, mu ni ma fi mu toll nii ñiy faj dañoo ëpp ñiy faju ndax boor boo gis da nga fay gis koy faj mën naa lii mën naa sangam su ko defee loolu ñun ne dañ cee jël sunuy matuwaay si kàttan suñu borom dañ cee jël sunuy matuwaay ndax bëgg naa nga may ma tuuti rek ma leeral su dee temps bi maye na ko gis nga euh, faj dafa doon domaine bu sensible gis nga képp koo xamante ne fajkat nga war nañ laa natt ci ñett yi nga xam lu mu doon ba pare gis nga kiy faj war naa xam suñu borom dani laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwim nee na doomu aadama dama ko bind ci bindin boo xam ne ba gën a jub la kon yow kon fajoo ay mala fajo ay garab fajo leneen doomu aadama ngay faj kon ki ngay faj dafa dafa dafa doon ku foor dafa doon koo xam ni suñ borom da ko may taxawaay kon jëmmi doomu adama war nga koo xam yow ci sa bopp yow miy faj war ngaa xam jëmmi doomu aadama ci zahir bi ak baatin bi waaw si kàttan suñu borom muy euh, li nga xam ni moom la ñuy tuddee taqwim boobu mooy benn pàcc bi ci faj kon yow mi faj ñett yi ma wax bu ci njëkk mooy war ngaa xam jëmmi doomu aadama am na ñoo xam ne tey jii boo toogee rek da nga yaakaar ni sax dañuy seet fekk du ñu seet wala am na lu ñu àndal fekk xam gi ñu xam doomu aadama ci lañ lan naa jàkk xam li la dal fekk dañoo xam jëmmi doomu aadama loolu war nga koo jàng ba xam ko waaw loolu nag lu nu gëstu ci alquran la dinaa ci leeral tuuti donte temps bi du ko maye. ñaareel ba mooy lan war ngaa xam jàngoro ji parce que xam doomu aadama rek taxul nga mën a faj waaye nga xam jàngoro ji nan lay yootee nit ki ba dal ko su ko dalayit yan manifestation lay am si kàttanu suñu borom boobooy ñaareelu pàcc ci ci faj waaw moom la ñuy wax shifa mooy fii suñu borom bi mu waxee ci yamb yi ba ni fii shifa un linnaasi kon am na fu mu jaar ak yamb yi da euh, am fu loo xam ni yamb yi dañ koy génne ci seen biir muy ndox boole koog la ñuy lekk liggéey ci benn xeetu euh, maanaam tooy tooy muy lem suñu borom doog a wax ni lii day faj nit kon tëbul tëb rek jël garab yooya jox ko nit ñi ñu koy naan waaye da koo jaarale ci benn usine boo xam ne da koy transformé am lu mu ca yokk ngir doog koo jox nit ki te loolu mooy jóge ci yaxaruju min bu tuuniha ca biir ba kon war ngaa xam lan mooy maanaam euh, lan mooy jàngoro ji ñetteel ba boo xamee jàngoro ji yi taxul nga xam li muy faj waaye nga xam la koy faj xam nan la koy faje ndax tey am na garab yoo xam ni mën na laa fajal li waaye mën na laa jural leneen loolu yëpp dañ ko war a natt ba xam ko Euh, am na garab yoo xam ne fi ne nii suñ la ko joxee soo ko joxee ku ëmb ëmb ba day tuuru kon loolu yëpp war nañ koo xam moom muy faj war naa xam loolu su ko defee nag taq taqwim boobu li ma ci bëgg indi muy doomu aadama ni mu tëddee gis nga doomu aadama euh, Abdallah moom bi ko yàlla bindee ba pare fukki bunt ak ñett la yàlla génne ci moom moom doomu aadama lépp luy dugg ci moom ci ci bunt yooyu lay jaar lépp luy génn ci bunt yooyu lay jaar fukki bunt yooyu ak ñett war nga koo xam yow miy faj xam ñaata buntal doomu aadama am ndax feebar bu la duggee rek wa isa masal insaana durrun benn ci bunt yooyu la jaar ndax dañ ni dara mënta génnee fu mu newul woon mënoo génnee foo newul woon dara mënta dugg fu mu xajul waaw kon bunt yooyu ci doomu aadama moom ngay njëkk a xam muy fukki bunt ak ñett fukki bunt yooyu ak ñett bu bu bu bi doomu aadama juddoo ci adduna kooka day daal di benn bi day daal di tëju muy jumbax bi mu des fukki bunt ak ñaar léegi nag bunt bu njëkk boobu dinaa la ci wax tuuti rek ngir tànnal la ñetti bunt yi gën a am solo ci doomu aadama nga xam ni moom la doomu aadama wala sàmm képp koy sàmm rek feebar du la yomb bunt bu njëkk bi yàlla dane xalaqal insaana min alaq alaq mooy lan mooy loolu nga loolu nit ki ko woon ak yaayam bi mu ne ci biir yaayam am na benn butit goo xam ni dafa laal ci sa jumbux laal ci sa yaay nga xam ni su lekkee dara moom sa ci yaay ji foofa lay jaar dem ci xale bi da koy transformer def ko deret yóbbu ko kon xale bu nee ci biir yaayam du lekk du naan waaye li yaay ji lekk naan ko transformer ko foofa lay jaar dugg ci xale bi. bu njëkk bi yàlla njëkk ibbi ngir doomu adama bi liy dugg ci biir yaramam su ko defee foofu gis nga mal formation yu bari ak feebar yu bari foofa lay amee. ndax am na feebar yoo xam ni da nit ki da koy judduwaale mu doon lu jafee faj foofu itam di nga gis xale bu juddu ñaari bët yi du ñu bokk direction bu ñuy xool benn bi day xool ni benn bi xool na le kooku da ngay xam ni kii un double la am parce que ñaari déplacement moo am falaq ak waqab ni mu ko indee ci suratul falaq falak mooy lépp loo gis rek am na fu mu jóge soo fi ñëw am na foo jóge te fa nga jóge it am na foo jëm fa nga jëm da nga fay dolliku fa nga jóge da nga faa wàññeeku kon falaq ak waqab moo am léegi nag xale bi fan lay dolli ko mooy li yaayam di lekk di jaar ci butit googu léegi nag su seetaanee tookee foofu da ngay gis ma xale bi bu juddoo moo tax ñi am ay rab seetlul seen doom yi suñu juddoo suwaat dañuy am problème mu nokki nooyi gi du normal wala ñi nga xam ni euh, seen tànk du normal yor nañ ci ay vidéo yu bari mën naa cee joxe benn si kàttan suñu borom ngeen xool loolu kon mooy vidéo bii ñu wane si kàttan suñu borom gis nga xale bi ni muy doxee nga gis ñaari tànk yi bii def ni bii def ni loolu li ko waral mooy foofu ci boutique gi ci yaayam maanaam foofu la foofu la mbir ma jaar fa la seytaane tooke mu ànd ak deret jooju jur formation bi xale bii ngeen gis ma wane tam ñaari bët yi bii jaar nii bii jaar ne loolu li ko waral mooy mooy li ma leen wax noonu mooy bunt boobu kon bunt boobu mën naa cee détaillé lu baree bari yow yow yow Abdallah mais damay tëb tëjandi foofu ñëw ci ñaareelu bunt bi waaw est-ce que yow garab yooyu ngay fajee da nga ciy boole alxuraan wala nan nga koy faje dëgg la waaw euh, ñun sax du ñu laal sunguf waaw mais xobu garab ci lay faj wala ay xob. waaw xob kese ak li nga xam ni mooy ay fleur. waaw fleur. fleur mel mi. fleur bi ngay dégg. waaw man dama gis ne <laughs> non dafa doy waar quoi ndax fleur fleur. fleur nan lañ ci mën a fajee nit. loolu daf ma jaaxal trop. Uh-huh. waaw. fleur nga xam ne mhm. tubaab bi dañ ko fonk di ko joxante ñoom ñu bëggante mhm. yow nga ñëw ne da nga ciy faj nit dëgg la léegi yow lool noo si mën a fajee nit dëgg la waaw xam nga bëri na xeeti gàncax yooyu romb wallahi mu ngi ci kër nga di ko romb wala di ko xëy di ko roose te xam boo xamoon la muy jariñ da ku la ci fay euh, ku la ci fayeeku un million din ko maanaam ku la ci fay un million ku la ci fayeeku un million di nga ko ko jox mhm. ndax boo xamee njariñ la am na ci xeetu fleur yu baree baree bare yoo xam ni ay dépression yu bari ngay gis fii nit ki du normal bopp bi normalu am na xeetu fleur yoo xam ni soo ko ci defaree bu ma la defaree composant bi ba def ko ni mu ko war a defaree jaaral ko ci yoon ya war jox la ko soo ko naanee trois trois jours ni cocc fleur bari na lu ma ciy faj ay bët sax dañu koy traité ci fleur ba loola doon bët yu weex tàll doon bët yoo xamante ne lépp lu ci newoon ci salte day génn maanaam euh, fleuru sap-sap xam nga ko waaw saab-saab tóortóor la boo xam ni euh, Sénégal xam nañ ko boo ne cere mbuum rek xam nañ ko surtout suñu mbokku séeréer yi waaw fleur saab-saab jëriñul cere kese ngir wax ko séeréer yi ñoom dañ koy def cere di ko ñeex waaye ñun dañ ciy faj buñ la waxoon ay njëriñam fi mu ne nii da nga naan ma déedéet lii mënta ne waaw kon euh, ma tuddal la ci benn ci xeeti fleur yi xam nga am na euh, benn fleur boo xam ni maanaam saaj xam nga saaj garabu saaj gars yi dañ koy sàkkete waaw mais fleur am tey jii yàlla xamal nañu ci loo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dimbali jaam yu baree baree bari parce que foofu rek laay duggee ci wàllu xeetu seetaane yi mooy fas wàllu fas defe naa war nga koo dégg ndax alquran saxal na ko te itam muslu na ci ndax fas dafa doy waar sunu mbokk pël yi xam nañ li may wax ñoo gën a garaaw ci fas ndax ñetti xeeti fas am na am na fas boo xam ni fasu benn cër la maanaam ñu fas sa benn tànk tànk ba neewi di diis waaw loolu fas la am na beneen fas boo xam ni maanaam yaram bi yëpp lañuy fas kooku nag faaw nit ki jël benn élément ci yaramu nit ki faaw mu jël soit karaw bi wala mu jël we bi wala mu jël sa sa sa mbubb mi sa sa yëre bi lii mën nañ cee jël daal di dem fas ko def ci ak njabar su boobaa yaram bi yëpp lay jàpp wala nga gis ñu ni kii dañoo tibb tànkam yooyu ay xeeti fas la te fleur boobu ma la wax nii yàlla dogal na da koy dindi suñu ko suñu ko suñu ko baxalee ba def ci ñaan parce que ñun alquran rek la ñuy laal man duma bind du digle sarax lii ma la wax nii ci laa yam mooy xeeti garab yi ma yàlla xamal ak ñaan yi may ñaan su ma ko baxalee tey ba teg ko am na la ma cay léemu la ma cay jàng ci alquran xam naa ko si kàttan suñu borom mën na dindi bépp xeetu fas am na fas goo xam ne it fasu noob la ak fasuk tàqale tey jii nit dina ji gis euh, soxnay jàmbur fexe ba fas ko ba doo xelam dootul dem ca jëkkëram waaye ci moom lay dem am na ñu ko fiy liggéey ñu baree bari lu xaraam la lu yàlla dàq la waaw nga xam ne dañuy fas nit ki ba dootul faare jëkkëram ba mu topp kenn rek te du ko tey yooyu mooy loolu mooy fasuk nopp pour xamal la njariñ gi nga xam ne fleur am na ko xeeti fleur yi ñuy fajee waaw bari na waaye pour nga ni li nga wax ni ma wax la ci benn rek bari na ci xeeti fleur yoo xam ni wax dëgg yàlla ay njariñ yu baree baree baree ngi ci si kàttan sunu borom su ko defee su su kiiwee may yeggali li nga xam ni moom laa doon wax ci ci ci ci ci ci doomu adama ba léegi waaw xam nga ginnaaw bi nga xamee wii mu doomu adama ni mu tëddee nga xool ni première bunt bi ñu njëkk tudd mooy boobu feebar yu bari fa lay jaar muy ci diggante sa diggante wayjur boobu buum goo fa buum googu fa ne gis nga doomu aadama bu génnee ci biiru biiru yaayam la muy utiliser fi mu toll nii doonatul butit googu waaye gémmañ gi la lay utiliser pour dund gémmañ googu dan koy daal di jox ween wi daal di fatt jumbux bi mu daan dundee nag ngir nag jox ko deuxième bunt bi muy ween muy muy muy gémmañ gi ci lay jaar pour mën a am lu mu dundee léegi nag gémmañ googu dafa xaw a doy waar gis nga tuflit yii nga gis nii yaa ngi koy xeeb waaye lu am solo la tuflit yii nga gis nii parce que lépp luy dugg si ci doomu aadama am na lu koy jël si ngir yóbbu ko ci biir lépp lu fay génn tamit am na luy ànd ak moom gunge ko ngir génne ko parce que tuflit yi tax man la am na solo bu dul woon tuflit yii ñam yi du rees parce que tuflit yi nga gis nii yi nekk sa biir gémmañ su ñam wi ñëwee maanaam ñam woowu day jaxasoog tuflit yooyu daal di jàll ñu baal ma ci wax ji waaye xam-xam rek la ñuy waxee day day day maanaam day jaxasoog tuflit yooyu jàll ci sa biir biir daf lay jàppale ci rees gi ndax tuflit yi nga gis nii day nooyal ñam bi léegi nag tuflit yooyu gis nga bu feebaree bari nañu am xetu gémmiñ wala feebaru biir yooyu muy jooy naan kuux fekk dañoo toppatawul seen gémmiñ gémmiñ dañ koy socc mbaa ñu boros ko gémmiñ dafa war a di set gis nga ki gémmiñum setul toppatawu ko kooku mënta wér parce que lii dugg ci saw yaram yépp ci sa gémmiñ lay jaar kon gémmiñ googu da nga ko war di toppatoo ay bunt la daanaka bunti doomu aadama yëpp bu ma la ci dugalee. <laughs> waaw tegal foofu sa baaraam maa ngi ñëwaat ci laaj boobu noonu nga continuer ko développer lu yaatu yaatu yaatu xam naa fi nga nekk am na solo trop mais da nga koy téye foofu noonu dinaa ci ñëwaat incha allah léegi man sama laaj bi ma lay laaj mooy est-ce que yow da ngay faj ñoo xamante ni jinne rab da leen a dugg. waaw euh, loolu comme ni ma la ko waxee sànq daanaka ci laa gën a wu. waaw xam-xam bi nag bi li ma doon wax sànq ci doomu adama dañoo dem ba mu yàgg ñoo xam ni liggéey bi laaj na ko ñu xam ne kuy faj doomu aadama fajoo mala war ngaa xam doomu aadama nan la tëddee aw yaramam waaye comme danga nga dañ si dellu si waat naa ñëw ak yow rek ci wàllu rab foofu falaa gën a spécialisé wu daanaka boo ma ci waxee sax damay kontaan indi naa ay euh, maanaam yu yu baree baree ngi nii yoo xam ne mën naa la ko wax ci ay xeeti jàngoro yoo xam ni rab moo koy waral parce que li tax ma fekk si nit ñi ci baat boobu ñun duñ ko woowee rab ñun jinne lañ koy woowee parce que rab yi mu ngi ci àll ba waaye nag li lay gis te yow gisoo ko nan nga ko mën a tuddee moo tax mag ñi woowee ko rab parce que dafa lay gis topp la di la sonal ba nga xam ni lii moom dafa am donte gisuma ko dafa am ndax yàqal gém lay yàqal. waa da ngay teg foofu sa baaraam ma ñëw ndax wax nga ba tudd ay jinne ndax yow da nga am jinne waaw euh, bëri nañu koy posé wu question boobu waaw man amuma jinne soxlawuma jinne te soxlawuma lenn ci jinne te sax bëgguma koo am bëggoo koo am bëggoo koo am mais n'est-ce man dama dégg sa biir wax nga ne da ngay faj koo xamante ni jinne da koo jàpp mm-hmm. waaw damay faj koo xam ni jinne da koo jàpp si kàttan suñu borom waaye soxlawuñu ànd ak jinne ñun soxlawuñu ko sax parce que li ñu yàlla may mayu ko jinne yenente yàlla jinne est que dégg nga ko fenn non non koo dégg fenn kon li yàlla may doomu adama mayu ko jinne bari nañu fi ànd ak ay jinne di ndamoo ci loolu waaw di def ay loxos di def ay kéemtaan waaw yooyu euh, maanaam wàcce sa bopp la parce que ñi ànd ak jinne ni bul yaakaar ne ñoo yilif jinne yi de jinne yi ñoo leen yilif parce que dañ lay génneloo ay sarax nga koy génne ñun nag turu yàlla bu set wecc ci la ñuy faj raxul lenn. kon li tax nga ne yow da ngay faj koo xam ne jinne da koo jàpp mm-hmm. lan moo tax nga ne bëggoo jinne amoo jinne te nga ne da ngay faj koo xamante ni jinne da koo jàpp. bari na sénégalais yu sénégalais yi maanaam li ñu foog mooy képp kuy faj jinne rek war ngaa ànd ak jinne te alquran dafa am puissance beneen puissance bu ci nekk boo xam ni lépp loo xam te ni lu lu mu dal sa kaw nga toj te lu dal ci kawam toj si kàttan suñu borom moo tax foofu la ñuy duggee ci intervention yi ma mës def ci dëkk yi man fépp fu ma fekk jinne yoo xam ne ay rebelle lañu ay seytaane lañu wallaahi duñu fa yendu te mën naa la fii limal lu baree bare parce que lëndëm maanaam leer mooy dàq lëndëm taxawal taxawal da nga leen di dàq jinne foo ko fekk da koy dàq. waaw jinne ju bon. Mm. jinne joo xam ni maanaam day day dafa dëkk ci coloniser nit ñi mën naa ci lim yu bare bari boo ma ko mayee. comme yan. waaw euh, garab gi nekkoon diggante daasaraami ak suuru dégg nga ko. daasilaami mel ni mii. waaw parce que euh, mën nañoo wane vidéo bi léegi mu leer. waaw parce que lépp na am preuve garab googu kenn daaw ko ñemee jege di gis mag ñiy wax foofu waaw mag ñi wax foofu wax lu leer ay mag yoo xam ni ay magi dëkk bi lañu wax la liñ daan gis ci garab gi bari na ñu fa daan fubal ci wetam daano suñu daanoo li ñuy wax mooy lan mooy garab gi kat suñu place la ab marché la ñenn ñi ni yoon la boo xam ne jinne yoo ko def ay lumière di ci jóge di tiim kër yi ñëpp seede ko foofu kenn daaw ko jege man mii maa ñëw si kàttan suñu borom ànd ak sama équipe jëlee ko foofu waaw loolu c'était en 2015 waaw muy vidéo boobu ngeen a gis waaw vidéo bu leer nañ ñi boobu ngay seetaan mu ngi fii diggante Dansana ak Sourou garab gi ñi ko déggul ci zone boobu bariwul man mii maa ko fa jëlee ci kàttanu suñu borom soo bëggee mën na noo dem ba léegi dugal tundu siin nga laajte kan mooy sëñ Njaay ci kàttanu suñu borom boo duggee tundu siin demal ci dëkk bu ñu naan njoon cogom digganteem ak Patar ah ay presque ay 3 kilomètres la kooku le 7 mars 2014 dem nañ fa benn intervention boo xam ne Dakar lañ jógee garab goo xam ni kenn daaw ko aw foofu benn yenn heure yi soo ko sànnee xeer dala koy delloo ku ci àjji laalo da ngay mu jàpp fa ay mag ay ndaw ñu woo ma c'était le 7 mars ñun ñoo ñoo ñoo gor guy gi muy vidéo boobu ngay gis ci kattan suñu borom man mi maa fa jële guy googu daaneel ko soo bëggee mën na noo continuer demal ci jaxaaw nga laajte sëñ Ndiaye si kattan suñu borom euh, digganteem ak ndoo 7 kilomètres la garab goo xam ne kenn daaw ko romb ak morceau bu xonk ñam fa jàpp kenn xamul nu mu toll góor gi ñu ko goral kër gi mu nekkoon wetu këram doomam da da daan yëre yi day tàkk nii directement te jëlee nañ fa yàq boo xam ni jinne ji ci boppam moo ko jox face à face xale bi jox ko ko amul intermédiaire ne ko lii ëw ko nga takk ko te day daaneel xale bi garab googu man maa ko fa jëlee ak bëri na ay tuur ay xàmb yoo xam ni ay jinne la woon yu sonaloon ay doomu aadama soo ñëwee ci kàttan sunu borom dama koy dindi comme ni ma ko jaaree ci dëkk yu baree bare yoo xam ne mënuma koo lim diggante fii ba Casamance boo demee ci euh, maanaam boo demee Casamance Koundioundo foofu am naa fa ay terrain am fa ay daara yoo xam ni tey jii lim la mu fay def suñu koy lim fii da nga naan bàkku la waaw te te te tuddul bàkku si kàttanu suñu borom ay ndam la yu ñu suñu borom defal yoo xam ne teguñu ko fenn fudul ci alquranu karim kon ñun preuve la ñu jiital doog a indi ay wax si kàttanu suñu borom ndax jàpp naa ne wax ju bari moom ñëpp a ko man kon vidéo yaa ngoogu soo gisee tuur yooyu gis nga tuur yii ma lay wan nii benn maire la woon boo xam ni maanaam digganteem ak xàmb yi ci ginnaaw néeg ba noonu la mais daawul nelaw su demee ba guddi da ngay gis xàmb yi jinne yi di ko yuuxu foofu waaw di ko yuuxu muy tiit ci guddi gi lu mat cinquante ans nee na dem na ba affaire bi xaw koo dofloo amul fu ko mbokkam yi yóbbul keroog bu mu ñëwee ci alxames ba wax wax ko kii la fa fekk ma ñëw ci ma ñëw mu wax ma ko ñu ànd ak maire bi dem ba ci këram mu wan ma xàmb yi fan la keroog ca alxames bi la ma ko wax ajjuma ba laa ñëw ànd ak sama waa ji dem dindi ko. yi ne dañ daan taxaw di law woo. déggu ko. waaw wax dëgg déggu ma dara dem moom nelaw nga ci jàmm. wallaahi de wax dëgg. Mm-hmm. dama doon jóg ñetti yoon ci la. Mm-hmm. ci ci gannaaw lay ji noonu. Mm-hmm. ma jóg jóg nii. ba bu ma nee rek bu tuuti ma def nii rek. ma tiit. du daal dégguma dara wax dëgg. Mm-hmm. doo doo dégg dara day dem na yoonam bu yàgg. dégguma dara moom si yàlla dootul taxawal. Ah, incha allah borom te boobu ba léegi jàmbatatul loolu. waaw soo demee jaxaaw tamit am na xale boo xam ni waa jaxaaw xam naa dinañ jot ci vidéo bi danañ ko gis mm-hmm. nañu seede lii may wax xale boo xam ni ñaari at am na ko ci biir néeg mm-hmm. génnul waaw kenn xamul lu ko lu ko gaa yi def noonu waaw dafa dem ba teen bi dafa xees ndax ni mu ni mu ni mu yàggee ci néeg bi papam jëli na ñaankat Mali ak gine waaw gis nga papaam mu ngi noonu toog moo xale bi lii ba ñuy ñibbi keroog la def témoignage bi wax ko waaw ba ma ñëwee ñu ni ma kii jëli nañ ñaankat Mali ba gine fu nekk dem nañ fa xale bi génnoon na waaye ba mu génnee ka ko fi génne ba mu demee rek la duggaat ci néeg bi man ba ma fa demee ñëw fa altine talaata àllarba ci la xale bi génn si kàttan suñu borom ñetti fan laa fa def ci xale bi génn delluwaat ci tool yi di jàppale baayam ba nii ma lay wax ak yow nii bëri na ñu ma fay woo ma leen di fajal bëri na ay tuur yu ma dindi boor boob ba bi may wax ak yow nii xale bi mu ngi ci jàmm waaw si kàttan suñu borom bëri na fu nu jaar daal yoo xam ne mënuñu koo lim. ba tey ñu ngi leen di fàttalil ne ñoo ngi si suñu émission faj aada ak cosaan si suñu TV. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله